saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Ama Baldé sëll mu ndaw ma yëkkati fukki dëggam ak juróom-ñaar daal di koy teg ca taabal ja gannaaw ba ko Luc Nicolaï proposé 80 millions ngir mu jàkkaarloog roi des arènes Modou Lo moom Ama Baldé dafa lànkoon ba tëdd ca ñag ba ne téeméeri millions képp ngir mu mën a taseeg roi des arènes samedi ca ngénteel Balla Gaye 2 la yëkkati ay kàddu daal di génn ca patt pataaral ga mu nekke woon Ama Baldé looy wax sa digganteeg Modou n'importe ah. man Ama Baldé maa sama cëggal guy ginaaru kenn nenu ma du dama fee toog rek ngir lu jóg yóbbaale ma maa sama bët yor sama tànk maay xool fu leer fu ma neex ma teg ko fa que tout se passe dans les règles de l'art loolee la Ama Baldé xamle ji dañ koo war teg ci yoon teg ko ci code dañ koo war jaarale ci yoon bañ koo sorxo sorxo 80 millions yooyu ñu ma proposé woon sama diggante ak Modou dama bëgg ñu xam ne man kenn amagul kon bu tiit année balance di am ñun VIP yépp a war a tiit ba ñu ko laajee ca digganteem ak tafaatin ba avorté woon mu ne maag tafaa commencé woon tafaatin dafa jotagul ñoragul tafaatin dañoo bëree ma daan ko mu ber yoonam ma ber sama yoon ma kon ne di am ay victoire moom it mu kon ne di am ay victoire bu doon dama koo daan ba pare ci diggante bi ma amaat defet mën naa koo jël waaye ba ma ko daanee ba léegi maa ngi continuer di am ay victoire ñu bëgg ma gestu suñu combat taxawagul bu promoteur ñëwee ba taxawal sama diggante ak moom nag bu boobaa ma xam ne contrat moo ñu boole lu ma neex wax koo soxla ci sa carrière mu ne Bombardier Bombardier daal soxla naa ko ngir mu ñëw ñu bëre même Gris am nay amateur yuy réclamer sama combat moom waaye gisaguma promoteur la suñu làmb xamle foofee nag mooy Ama li tax mu bañ 80 yi da koo teg fu leer fu wóor la ko teg ndax am na ñaari promoteur yuy démarché combat am digganteem ak Modou Lo benn promoteur ba fay na ko 90 millions beneen ba fay ko 100 millions journal ba xamle ne dañuy mu dal leen journal ba xam ne li tax na Ama Baldé lànk tëdd ca ñag ba ne 80 du ko sëggal kenn moom Ama Baldé Bombardier ma muy laaj guddi yi mu ngi ci naqar bu yóbbaale ak làmb gépp moom Serigne ja Bombardier magam ja jege ñaaleem ba manageram ba ñuy wax Pape ja moo génn àdduna ni démb journal ba xam ne loolee naqar ak tiis bu dalati ci kaw ak làmb la du Bombardier képp waaye mbooleem ku nekk ci làmb tey ñàkk nga di di amateur jàllee bu ñu jàllee ca Adrien démb waa amal daa ñoo fa nekkoon ngel jonn ma ñàkkoon demi final am novembre digganteem ak Pakala moo demoon final digganteem ak Mamadou Seck ña yaakaaroon ne ngel jonn dana rectifier demi final ba digganteem ak Pakala dañoo nax seen bopp ci une minute la Mamadou Seck weñ ki nga xam ne mooy ngel jonn combat Mama Lamine ak Jokkel ba Fallou Ndiaye jàpp le 1er décembre fas naa amal face à bu njëkk mardi bii ñu dëgmal talaata bii ca 2STV la ñu fas yéene amal seen jàkkaarloo bu njëkk bu dee BMW ak Petit Baboy ñoom altine bii la ñu fas yéene amal seen premier face to loolee 17h ko jàpp foofee ca DTV ba ñuy jeexale mooy ca sunu lamb door baak écurie Yoff baytiir ndooy may président ba fu ne jote na fa ay félicitations gannaaw bi écurie ba jëlee sunu lamb door bi mbooleem ku nekk ci lamb nangul nga ko mérite boobee waaye mbër ya nekk ci écurie Yoff it nangul nañ leen seenu xereñteef mel ni Malick moo jëba ci loobu Yoff ba ci saamu yaboy yi le mbër ay champion lañ ay ndaanaan lañu ma nekkoon li gën a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 ak sëñ Basiru waaye lii neexut ci mag tur yu mag yi waa lii neexut diili Kebe sëñ Basiru waaye ak diile Kebe sëñ Basiru Diouf waaye lii neexut ci ñaari tur yu mag yi ci Wassare Lamb revue de presse bu neex mereef bu neex ku bëgg a gis yu leer caméra yi nag jógewul Sénégal États-Unis d'Amérique la jógee set wicc leer nañ lii neexut wasaare lam wasaare